jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha jërëjëfati Cheikh Mouhamadul Mountakha sa jaajëf ji daj nam réew sa ndam wër na àddina ku santul sa jëf ji sarmadan kooka yàqu na sa jaajëf ji daj nam réew sa ndam wër na àddina ku santul sa jëf ji sarmadan kooka yàqu na sa jaa jëf ji daj nam réew sa ndam wër na àddina ku santul sa jëf sar sarmadan kooka yàqu na sëriñ bee la far moo teeñ la yan la te péng na teyit moo la wommat saw doxin yàlla sant na sëriñ bee la far moo teeñ la yan la te péng na te it moo la wommat saw doxin yàlla sant na sëriñ bee la tànnal boppamit boppamit kenn tànnu la te tànnuk sëriñ sëriñ beey ngeen ji tànnit lu dëggu la sëriñ bee la tànnal boppamit kenn tànnu la te tànnuk sëriñ beey ngeen ji tànn lu dëggu la sëriñ bee la tànnal boppamit kenn tànnu la te tànnuk sëriñ beey ngeen ji tànn lu dëggu la sëriñ bee la yenkeewal njub xel tofal fu la sëriñ bee la ñor sag dund sëñ bàmba rekk la sëriñ bee la yenkeewal njubuk xel tofal fu sëriñ bee la ñor sa dund sëñ bamba rekk la sëriñ bee la won aw yoon fétal yow duhul sa mbir ci aw yoon nga aw loo tabbi tabbee ca mbakki xir sëriñ bee la won aw yoon fétal yow duhul sa mbir ci aw yoon nga aw loo ca mbakki xir sëriñ bee la far far yaa ko neex yow la tànn far sëriñ bee la def mbër ku la ne carfal nga fab ko tër sëriñ bee la far far yaa ko neex yow la tànn far sëriñ bee la def mbër ku la ne carfal nga fab ko tër sëriñ bee la mber maal daara ji yaa ko far defar tayit moo ko ñaanoon yàlla yaa jëf ko xuut bu sar sëriñ bee la mber maal daara ji yaa ko far defar teyit moo ko ñaanoon yàlla yaa jëf ko xuut bu sar sëriñ bee la siiwal muntaxaa foo gisum mbindam dajeeg muntaxaa mbaa mustapha saaxinel naam sëriñ bee la siiwal muntaxaa ndaxam muntaxaa daarot miraaran ci ay waxam ba xëy teew ci nun ngay muntaxaa far nga doon jëmmam ndaxam muntaxaa daaroot miraaran ci ay waxam ba xëy teew ci nun ngay muntaxaa far nga doon jëmmam jikkoy muntaxaa may muntaxaa yaa ko donn tey meloy muntaxaa yaa yor ko yaa jub rafet may muntaxaa yaa ko donn tey meloy muntaxaa yaa yor ko yaa jub rafet te xay bari muuñ te am wormaat lewet domm mat nu ndey sa kersaak sa muñ xëy gaw la yaa sàmm lool te way bari muuñ te am war maat lewet domm mat lu ndey sa kersaak sa muñ xëy gaw la yaa sàmm lool te way tabeeg mën a maslaak nit te am aajo laqi may te yaatuy ndimbal waa mew ngëneel waa mew ngëneel nga ku farlu bay tabeeg mën a maslaak nit te am aajo laqi may te ndimbal waa mew nga neel nga ku farlu bay tuxal nga fi ak réer daara ji kenn dootu réer saxal nga fi am riir sarmadan dootu dañ di riir jëhaalatu day dañ faw seytaane may xaruur yëgal leemu ser ngir sooy ga yaa xëy labal xuruur jëhaalatu day dañ faw seytaane may xaruur yëgal leemu ser ngir sooy ga yaa xëy labal xuruur te ak réer la koy faj wër la doon xaste mbaa ki dóor xam ak mooy faj réer xamay tax jullit du ruur te ak réer koy faj wër doon xaste mbaa ki dóor xam mooy faj réer xamay tax jullit xamay tax jullit bii moytu tey bañ lu bon di daw xamay tax jullit dëgmal boroomam ba xam li xew xamay tax ne nit xamay tax ne nit xamay tax ne nit jag xam-xamay tax ba nit du bew xamay tax ba nit jag xam-xamay tax ba nit du bew xamay rafetal diggante xamay rafetal diggante baw yiw di wéy di law xamay tax ba nit jag xam-xamay tax ba nit du bew xamay rafetal diggante baw yiw di wéy di law xamay tax ba ba réew am jàmm développé yegg kaw xamay tax safaan réer xam-xamay tax lu rëy du sew xamay tax ba réew am njàmm développé yegg kaw xamay tax safaan réer xam lu rëy du sew sa waajur ya bëgg nañ sa magit sa waajur ya bëgg nañ tey sa waay jur ya bëgg nañ say magit mbàkke bëgg nañu ña Cheikh Bamba seexal bëgg nañu ñépp añ nañu sa waay jur ya bëgg nañ say magit mbàkke bëgg nañu ña Cheikh Bamba seexal bëgg nañu ñépp añ nañu sa waay jur ya bëgg nañ say magit mbàkke bëgg nañu ña Cheikh Bamba seexal bëgg nañu ñépp añ xabul la la buur booleel bunu xet gi xeeñ nañu baxin baxin yaa xawsal wara haaka sooyuñu xabul la la buur booleel bunu xet gi xeeñ nañu baxin baxin yaa xawsal wara haaka sooyuñu xabul la la buur booleel bunu gi xeeñ nañu baxin baxin yaa xawsal wara haaka sooyuñu jërëjëf damay téye sama xalima ndax xam naa ne su ma xuusee rek dinaa wax lu doy waar moo tax bëgguma xuus sëñ Yuusu Jóob li mu wax ci xaal la ko wax waaye wax na dëgg sëñ Yuusu Jóob wax na dëgg Cheikh Mahamadul Muntaxa kuy jàngat mbiram danga xam ne mbiram mbirum sëñ Tuubaa dëgg la ca Cheikh moodu Moustapha la ko sëñ Youssou Diop tàmbale ah kay Cheikh Mouhamadul Mountakha wax nañ ne mel na ne bi ko sëñ moodu mustafaa di njëkk a teg bët booba sëñ Cheikh Astoufal magam ñoom ñaar lañ boole indi ci sëñ Modou Moustapha booba ay tut tànk lañu ci zahir mel na ne dañ leen a tungoom indi sëñ Modou Moussa wax ca ñoom lañuy la muy wax ca ñoom seetlul leen boppam kon foofa la yëf yi tàmbalee Cheikh Mahamadul dégg nañu ne mel na ne am na kazzore bu koo xam ne Cheikh Mouhamadul Muntaxa àndoon naag moom ñëw kër sëñ Afe Ñang mel na ne leetooru bu arab ba Cheikh Mouhamadul Mamun Ñang defoon rahimahullahu taala wax nañ ne bi ko Cheikh Mouhamadul Fadil jàngee ba noppi dafa geesu sëñ Muntaxa teg ko ci loxoom Cheikh Abdoul Ahad diggan dégg nañu digganteem ak Cheikh Mahamadul Muntaxa lu nu néew néew ak dégg dégg nga ci dara am na ci loo xam ne yàggut sëñ Muntaxa ko waxal boppam nee na bi mu koy wax wërsëgu murit yi fi mu bàyyi ko mel na ne da ko sempi ci biir mbooloo ànd ak moom ba barab ñu bokk toog moo waxal boppam ne booba li may wax jortoon naa ne du ma ko xam waaye ndekete lu muy def ci man la loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko waxal boppam diggante Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Cheikh Abdoul Khadir ku yàlla bind lu nit néew néew ak dégg dégg nga ne safoo woon na ko defoo woon na ko fekk na ko fu nekk diggante Cheikh Mouhamadul Mountakha ak Cheikh loolu moom àddina bépp am nañ ci xam-xam ci ni ko defoon ni ko téye woon ni ko fonke woon ni ko wóolo woon diggante Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak Serigne Souhaïb lu leer naññ la lu ko ne xam du du kenn di werante ni ko Cheikh Mouhamadul Mourtada defoon àddina wérantewu ko ku xam lu mu néew néew am nga ci loo xam Cheikh Mouhamadul Lamine Baara ibnu Cheikh Mouhamadul Fadil ni mu ko defoon leer na àddina bépp ñépp xam nañ ko sëñ Sidil Muxtaar ni mu jàppee woon Cheikh Mouhamadul Muntaxa umpul kenn ñii nag duñu xool fu dara nekkut duñu laal fu dara newut waaye juróom Cheikh Mouhamadul Bachir nag xolam sedd na tey jii naka jekk xolam sedd na waaye gën naa sedd ndax taxawaayu sëriñ Basiru ci diggante sëriñ Basiru ak xam-xam la ko xam-xam jaraloon lim jëf ci xam-xam bu ñu demee ba naalu jàngu boo xam ne sëñ ko ñaanoon sunu borom yàlla defal ko ko naal bi sottee ci loxo yi doomi boppam loolu yaakaar naa ne ku ne mën ngaa gëm ne Cheikh Mouhamadou Bachir xolam sedd na maru xam-xam ba sëñ Basiru amoon ba mu jaraloon ko di ko wuti fu ne yàlla defal na ko ko tey jii defal na ko ko booba am na ca lu ko doy sëkk waaye am nga yokku na tey kon yaakaar naa ne jullit bu ne du ma ne murit bu ne waaye jullit bu ne sa yitte war naa jëm ci di ñaan sunu borom mi nga xam ne dara tëwu ko te lu ko soob def te dara tënku ko mu doxale sëñ Muntaxa ak moom dundu kiimtaan koo xam ne dana jaaxal ku yàlla bind yàllaa ko defoon ci kuñ ko mës a dégg ci moom yàlla ma ko defoon jóg fi tey la fi gën a nekk lam mënoon tëliwu ko tey la ko gën a man kuñ fii dégg ñu yéem ay atam yu bari suñ borom moom mu moo ko am daan ko joxe moo ko ko jox suñ borom moom yi nag mi ngi fi xudduraam ak iraadaam ba tey mi ngi mu téye te moo ko yoral boppam kum ko bëgg a sotti rek dana la ko sotti yàlla na nu defal ci dul mun taxaa fan yonent yàlla nooxin ya mu amaat yàlla baamtuwaat ko ci moom addina bépp ci bët te mu ànd ko wér wa amma maa yanfau fa yamkutu fi l ard ñaan la goo xam ne àddina bépp ci war a maase ndax ku àddina nangul la bu wóoroo xol yi yàlla bind ci xol yi yàlla bind ca ña ko am ak mbaax maanaam mbaax gi yàlla def ci ñi nga xam ne yàlla gindi na leen defar seeni xol ba ñu nangu lu baax ñoom ñépp maase nañ nangul si Mouhamadul Mountakha Baye Modou Fall li ci firnde mooy tukki bi sëriñ Isxaaq rakkam mujj a def ren ma ànd ko moom muy tukki bi mu doon def ci tund Fuuta lii may wax sëñ xaadim jóob mat na ci seere sëñ xaadim jóob wurusoo gi tukkulóor ya nekk foofa di boroomi xam-xam di boroomi diine di boroomi daraja di boroom mbooloo nangul nañ sëñ taxa ni ko bay boppam yi nangule te loolu diine rekk a ko waral ak bëgg yàlla kon Cheikh Mouhamadul Mountakha amatul naa si bépp ñoo ko maase nangul te loola def defub sunu borom la bu yàlla dogal ci moom yàlla na nu ko fi yàlla bàyyil may ko atte yonent yàlla nooxin ya mu dund lu ko soob te yàlla bàyyee kom xelam booleel ko ci ak wér bi jaaxi xaadima rasuli wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu